الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون قد احتفلنا قبل أيام بذكرى غيبة الشيخ الخديم رضي الله عنه البحرية وقمنا بما طلب منا من إعانته على شكر الله على النعم والمواهب الجليلة التي اختصه بها بعد محنة الغيبة وانتهزنا الفرصة لمدارسة حياته وتعاليمه وبمدارسة حياته رأينا أن من أسباب هذه الغيبة ما يرجع إلى قومه وهو أن الله أراد أن يكون شافعا لهم سبب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاها وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في الدوم وهذه الشفاعة أيها الإخوة المؤمنون تكون في الدنيا قبل الآخرة فقد حمى رضي الله عنه قومه من التغريب وأرشدهم إلى طريق النجاح وقاد من قبل منهم على هذا الطريق بالتربية والتعليم وفي مقابل هذه الشفاعة يجب علينا أن نشكره ونرد إليه بعض الجميل لنستحق شفاعته في الآخرة ومما يكون به الشكر ورد الجميل أيها الإخوة المؤمنون أن نتقيد بمبادئ طريقته من طلب العلم النافع وممارسة العمل الصالح والتحلي بالأدب المرضي مع كسب الحلال والخدمة نعم سنت يالا دجل جيون النبي صلى الله عليه وآله وسلم دنيان يالا مدول كخيول أكو مج ماما كم جبوتم أك صحابة أكيب كجار جاو يانم بعد نيتوك بكي فني ويسورك لانو دون سنت لسنج بمك بي yàlla ci may yu màgg yim ko may ginnaaw bi tukkeem boobu jàllee muy tukki géej ci biir santale ko yàlla itam doon nañ jàngaat ak nafaraat ay jaar-jaaram akum njàngaleem ci biir jàngaat ay jaar-jaaram xame nañu ci ne tukkeem boobu bokk na ci li ko waraloon loo xam ne ci aw xeetam lay dellu te mooy yàlla dafa nammoon mu doon ku leen di xettali moo waxal boppam ne sama tukki bii li ko waral moo di ne yàlla dafa nammu ci man ab wàccuwaay bu ma bëgg a jox dafa nammu itam may xettali sama xeet nammu itam may liggéeyal yonente bi sallallahu wa sallam ci lu sax xettali gogu nak mbokk yi ci adina lay tambule bala al-akhirah tambule nako ci adina si ndax arna aw xetam ba tubab bi fëkkul seeni xol fëkkul seeni xel ndax amna ñum ko manal amuñ ko leen ci aar ni maare moom aw xeetam ba tubaab bi fëkkul seeni xel fëkkul seeni xol waaye itam tegtal na leen itam yoonu yoonu njub wuy tax ñu mucc bu ëllëgee ñi ñu ko nangul itam yar na leen ca loola jàngal leen ca jàngal na leen loola yar leen ca kon xetti na leen ci àddina xettali gii moom xettali ci àddina nag dafa am lu luñ ko ci ameel noonu itam leen ko ci ameel mooy li ñuy wax rek delloo ko njukkal delloo ko njukkal rek ak sant ko sant ko ak delloo ko njukkal buñ ko defee xettalik ëllëg dana mën a am waaye ku ko sant ci xettali gi mu la ci àddina delloo ko ci njukkal bu ëllëgee danga mën a am ak xettileem te mooy ak ràmmam li nu koy sante nag ak di ko ko dellooy njukkal bokk yi mooy rekk nu tënku ci am njàngaleem loolu rek lañ koy sante loolu rek lañ koy delloo njukkal itam am njàngaleem itam nin ko xamee am nay ponk ponk yi kon nu tënku ci rek te mooy sàkku xam-xam jëfee lanu xam am ay teggiin di fàggu lu lew muy di di liggéey liggéey bu lew bu dagan di jariñ nit ñi itam yooyu mooy ay mooy ponk ci am njàngaleem buñ ko bëggee sant bëgg ko delloo njukkal ni nu koy defee mooy tënku ci loolu rek waaye safaan bi du mën a firi mukk sant ko du mën a firi mukk delloo ko njukkal safaan bi mooy lan mooy ne dañoo dañuy yaakaar ak ram moom ëllëg ba noppi di def lu nu neex di def lu nu neex te bu ëllëgee danañu ràmm di wax ne danoo rafet njort loolu du sant ko du delloo ko njukkal te daa safaanoog lim jàngale moom sëñ bi dafa wax ne yàlla de dafa am lum digle am lum ca dige am lu mu tere am lu mu ca tëkkoo it lim dige mu wax ku ko def lam cay amee ci lu ko neex li mu tere itam mu wax ku ko def la ko ca mën a fekk ci lu ko dul neex moom sëñ bi mu ne bokk na ci rafet njort nag nit ki di def li ko yàlla digal te yaakaar a jot ca lim ko dig nen loolu mooy rafet njort te lim digee rek mooy àjjana la ko tënk la tënk lim digee lépp mooy àjjana mu ne bokk na ci rafet njort itam nit ki di moytu li ko yàlla tere te yaakaar a mucc te la mu tëkkoo la mu tëkkoo itam la ko tënk lépp mooy sawara mu ne nag am na lool du rafet njort waaye wéye njort la ak topp njort moom sëñ mu ne yàlla nañu ci musal yàlla yàlla musal ci wéye njort ak topp njort mu ne loola mooy lan mooy bañ a topp liñ la digal xanaa di def liñ la tere ba nopi nan da ngay yaakaara jot lañ diggé lañ diggé mom def lañ diglé moy tax nit war ra am yaakaara jot ci wa baña def lañ diglé ba nopi na da ngay ba nopi yaakaara jot ca lañ diggé señ bi nan lool do rafet njort way top njortu la ak wéy njort moo tax mu wax ne né da nga bëgg aljana ta jaaro ko ci top yalla top yalla gu deppok sunna su sallallahu alaihi wasallam nee na loolu ak waru rek la waaye du leneen waru nag mooy nit ki jàpp ne mi ngi ci dara dema dem ba lépp jeex ñuy lijjanti mbir yi mu door a xam ne lim nekkoon du dara loolu mooy waru te sëñ bi nee na ki naan dafa bëgg àjjana te du topp yàlla jaar ko ci ni ko bi doon defe nee na kooku ci waru la nekk waaye nekkul ci lenn lu wér noo yàlla mu fayal nu sëñ bu mag bii ñaan ko itam mu dimbali nu ba nu man koo sant delloo ko njukkal lu mu néew néew ngir bu ëllëgee nu man a am ak ràmmam ginnaaw bi nu ko amee fii ci àddina ak xettaleem am nañ ko fii ci àddina waaye ñu ñaan yàlla itam mu dimbali nu ba nu mën koo am bu ëllëgee donc ñaan yàlla mu defal ñiw at nag wala xira musal nu ci sawara sàmm na sunu ngëm ubbi nu bunt jiw yëpp soob nu ci yoonu njub mottal sunu mébét yëpp may nu fa nu gudd ak mu ak muñ gu rafet Thank you. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة المؤمنون ليس من الشكر ولا من رد الجميل أن نفعل ما نشاء ثم نرجو شفاعة, شفاعة الشيخ مدعين حسن الظن فهو رضي الله عنه وأرضاه يقول الله تبارك وتعالى أمر ووعد ونهى وأوعد وإن من حسن الظن امتثال ما أمر به مع رجاء الفوز بالموعود الذي هو الجنة التي وعد المتقون واجتناب ما نهى عنه مع رجاء النجاة من الموعد به الذي هو النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن من اتباع الظن نعوذ بالله منه ترك الامتثال باقتحام المنهي